beneen bi ci des li jëm ci wàllu euh, ICS li fi xew metti na ndax ñun ñëpp seetaan nañ ko ci tele mais ay nit ñu liggéey ba wàcc ñu kar leen di leen dóor population bi kar leen di leen dóor waaye population boobu fu mu toll ba tax mu fekk nit ku liggéey ba wàcc mu koy kar di ko dóor ndax olof yi dañu bu dara dee boo gisee luy saxaar rek am na lu ñuy taal. Mm-hmm. nit ki parce que Senghor dafa am lu mu réussir woon te gouvernement yi fi jaar yépp dañ ko échec ndax bañ ngaa dégg Senghor dafa privilégié woon mbay sàmm napp. gis nga réew. mbay sàmm ak napp moo koy doxal. ndax ñëpp mënuñoo maasa nekk ci informel bi. il faut informel bi li ci ëpp ci lañu nekk te danañ ci ñëw buñ duggee ci marché yi te buñ sekkee ni nit ki am na ay toolam moom suufam amuk njabootam xamut lu dul bay kooku danga koy fekk ca fa mu nekk nga jàppale ko ca su joxe jiw jotee nga jox ko jiw bu baax bu doy jiw bu baax léegi jiw bi ñu joxe baaxatul. nga jox ko engrais bu doy léegi joxee tu ñu engrais di ko ci jàppale su bayee ñetti weer nit ki nekk ko ci naaj wi di bay te mbay ak ni mu méttee ku ko xam mbay ak ni mu méttee mu bay ba pare li muy bay yow mi nga xamante ni yaa nekk ci taax yow la yow mi businessman su boolee toolam lépp jaay ko tey am na ñoo xamante ni suñu boolee seen tool yépp jaay ko seen tool ak seen tool yi doom ak seen tool yi jabar yépp jaay ko ba ne xaalis bi temps la yow ci sa ñetti fan boo duggee ci biir Dakar say lijjanti mën ngaa lijjanti lu toll mm. noonu ci ñetti mm. fan mm. fan lañ jëm parce la ko waral mooy prix ba ñuy jëndee du baax nit ki bay ba pare nga fixé ko prix moo dul dëgg du yoon. Mm-hmm. nit ki da nga koy bàyyi su bayee gannaaw ba muy bay joxoo ko jiw joxoo ko engrais la mu doon dunde joxoo ko ko. Mm-hmm. am ñoo xamante ni dañuy leb di dunde ngir su bay mi ñoree ñu jaay dem fay nga xamante ni yow li ngay bay xaaj bi lekk nga ko ndax dem nga lebi ko ndax dara ko ci biir sàq mi. Mm-hmm. kooku mu bay ba pare wëlbati ko naan ko nangam ngay jaay teguwut fenn. il est temps ñu toog waxtaan ci loolu. kon nit ki amul lu dul suufam yow nga dikk samp sa ci biir. nga gis ni li ngay utiliser ci ay produit mi ngi yàq suufam. mënatu fa bay dara lu jor damay danaa ci ñëw mënatul bay lu baax. loo fa bay mu dee da ngay romb tey boo rombee di dem nga romb sokosim bi li ko wër yëpp da gis garab yu weex tàll noor ak nawet nag dara du fa sax kon mu leer na ni la fay génn di yàq gàncax gi kooku bu duggee ci doomu aadama nan la koy def ak garab ak ni mu mën a résister nga li koy ray ba nga xamante noor ak nawet dara du fa sax kooku bu duggee ci biir xolu doomu aadama wala biiru doomu aadama la mu la fa yàq da nga a xam ne mu toll mm-hmm. léegi nit ki taxaw nag di di réclamer lii ñu ma yàqal te ci laa yaakaar pour dund dundal ci sama njaboot nañ ma nañ ma jox ay ndàmpaay yoo xamante ni au moins dana def dara kooku nga téye ko di ko dóor ba de ci gaañ di ci jàpp loolu ëpp na waaye ñoom i tamit dama jàpp ni kar ñay liggéey ca usine ba di leen dóor it loolu it ëpp na soo waxee lii na nga wax la ca des mm-hmm. Mm-hmm. parce que foofu nit ñi nañu bàyyi di parparloo ci dara bu wax dëgg jotee dañ ko wax waaye loolu lépp damay wax ni responsabilité état du Sénégal la mm-hmm. responsabilité état du Sénégal parce que ñoom la ñu dénk suñu lépp kon dafay am loo xamante su nit ki génnee ci télé bi wala mu génn ci rajo bi wax ko benn yoon rek ñaari yoon balay ñett muy jur jàmmaarloo mm. war nañoo mën a jóg dem jaww ndax am nañ ministre boo xam ne moo jëm ci wàllu mbay mi mm. te ma li ma jaaxal da ngay am ministre am direction ministre bi am na am na direction mm. boo demee ci assemblée nationale am nañuy député même député yi damay wax ni seen mission dañ ko fayit parce que bu ñu toogee ci tele bi wala ñu toog ci rajo bi déglu ci rajo bi dégg aw askan di jàmbat nangam surtout lu mel ni li xew foofu ak yeneen ñu ko jiite euh, problème mu waa ji ngoom Euh, bu ndengaleer bi waaw bu ndengaleer bi dégg nañ ko feeg la fa xew lépp. gis naa député yi wàcc fa loolu mooy seen mission. su ñu gisee ci télé yi wala rajo yi aw askan toog di jàmbat. bu ñu mm. xool intrapersonnel. nañ xool intérêt commun ndax kiy def lii moom la muy am foofa moom akuk njabootam ak ku sa nekk rek ñoo koy jariñoo mm. mais nañu xool askan way laru ca la muy def mm-hmm. ndax moom war nañ koo jënd benn nit akuk njabootam wala ku mu ca bëgg a defal mm-hmm. lam cay gagné mm-hmm. ñoom dañu war di wàcc di gëstu jafe askan wi ndax moo tax ñu yóbbu leen ci assemblée nationale